salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, bokk yi nga xam ne yéen la ñu jàkkaarlool noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di siyaare noo ngi leen di baal xaq te di leen balu àq noo ngi leen di ñaanal jàmm di sàkku ci itam fu ngeen mënti toll ngeen di nu ñaanal jàmm yàlla mi xam jàmm da ko jeexle moom la ñuy doolee ñaan yàlla nañu yàlla booy defal jàmm noo ngi ñaanal way dawlu ya nga xam ne ñoo nga ca àllaaxira yàlla yàlla jéggal leen seeni bàkkaar yal na yàlla xaral leen na ak leen xirmane boppam ji way tawat yi itam noo ngi ñaan yal na yàlla fëgg seen bopp bañ delluwaat seen sago ñi nekk ci nattu noo ngi leen di ñaanal yal na yàlla teggi mboolem nattu yi way fal mboolem tiis yi delluwaat nag di ñaan jàmm ci réew mi naal yi nga xam ne itam naal nañu ko cottite gi sugganee yal na yàlla defal na ko lu xam ne coono yàlla àggale na sunu yéene. nu wëlbatiku nag di siyaare mbooleem téléspectateurs yi nga xam ne baaxoo nañu ànd ak nun ci sit bii di alazhar touba point com rawatina seen émission bi di jataayu mu kàllaf eh, di siyaare mbooleem jullit yëpp di siyaare ñi fi nekkal diina ji di ko sàmm ñu leen di tudde itam ay eh, njiital tarixa mu mel ni ak tarixa yëpp nag ñu leen di siyaare ak seeni njaboot di siyaare nag alfajratu Cheikh Sidi Mokhtar xalifa Xaadimu Rasuul moom mi nga xam ne moo fi toogal tey Serigne Touba Xaadimu Rasuul noo ngi koy siyaare bu baax Cheikh di Mokhtar di ko doolee ñaanal fa noo gudd ànd ak wér yaram yal na yàlla boole ñoo moom sàmm yal na yàlla xaar nu xaaralenu yal na yàlla defal ko itam li di yéeneem ci dëkk bi di Touba ak li di yéeneem ci mbokk gi ak li di yéeneem ci lislaam ji yàlla defal ko kàttan ak wér gu mu ko jëfe na mu ko bëggee nu ànd ko ak moom bi jaay si lu jot eh, di siyaare itam nag seexi sëriñ Touba yëpp nag waaye di siyaare mbooleem sëti sëriñ Touba yu góor yi ak yu jigéen yi mu mel ni nag eh, sëriñ maam Thierno bu ñu nee ñoo ngi siyaare sëti sëriñ Touba yi te wax naa ne mboolem sëti sëriñ Touba yi yu góor yi ak yu jigéen yëpp doomi séng lañu benn boo ci yëngal yëpp yëngu kenn koo ci siyaar dafay doy sëkk ci mboolem sët yëpp kon bu nu jëlee sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké moom sëriñ Maam Mor Mbacké moom sëriñ Mouhamadul Mourtada Mbacké radiyallahu taala anhu moom Xaadimu Rasul radiyallahu taala anhuma dafay daal di doy sëkk ci mboolem sët yëpp ñoo xam ne sunu siyaare àgg na ci ñoom kon ñoom itam ñu koy ñaanal moom sëriñ Cheikh Ahmadou yàlla yàlla. àggaleel ko yéeneem defal ko kàttanak ak wér wërsëg wu yaatu ba tool bi nga xam ne ci la nekk bay te mooy toolu lislaam yàlla gën koo dooleel defal ko ab goppam ba mu gën a mën a bay tey itam yàlla defal ko ci ndam euh, tey nag na euh, nañu ci kàttanu borom bi tabarak wa taala ak yërmandeem euh, ci seen émission bii di jataayu mukallaf nu baaxoo cee ànd ak sëriñ Basirou Seck ndongal daaru Minam ci faram-fàccee bataaxel waaye ci caméra ñu ànd ci ak euh, sëriñ maam Thierno Faye mi nu baaxoo àndal ci émission bi euh, ki leen koy présenté nag seen mbokkum taalibe bi seen xarit Ibrahima Ndiaye mu mel ni kon tey bataaxel bi nga xam ne jot nañ ko fi ki nu ko jox moom nee na lim bëgg tey ñu waxtaane ko ci jataay bi mooy danoo gis ne am na loo xam ne warul sax ndaw waxuma la mag warul góor waxuma jigéen warul ñi nga xam ne itam ay njaboot lañu di ay surga rawat na di kilifa ak kilifa loo mën a yilife loola mooy lan mooy li ñuy wax jikko bi ñuy wax ci doomu aadama ëppal ëppal nekk na jikko joo xam ne daanaka nit bu ëppalee lu bareem doonut lu wér nga xam ne diine mënta wér njaamuram mënta wér xam-xamam mënta wér daraam mënta wér ndax lu tax mooy ëppal te gaay tax maam Thierno gis nga eh, li tax ma wax ne nit bu ëppalee diine mënta wér ñu jël ko ci exemple ci julli dafa am nu war a doxe am nuñ koy tegtale am nu war a toftalantoo kon su fekkee ne nit ki ëppal na mën naa julli war a def ñeenti ràkk waaye ak ëppalteem tax mu def juróom wala ak ëppalteem tax mu def ñett kon julli gi dafa daal di mel ni yàqu na nit bu ëppalee mën nay jàng waaye ci biir njàng mi muy tëb ay aaya wala muy yàq ay baat wala muy tëb ay baat wala mu jàng kayit bi yaakaar ne jàng ko euh, loolu lépp ci ëppal la bokk daraam daal mënta wér bu ëppalee nit daal lañ ca bëgg dëgg dëgg mooy teey dañ ne sax ci ndox lañ ko gën moom mi ñuy naan waaye teewlu nag ci doomu aadama la gën euh, borom bataaxel bi nag nee na mu joxe ci loo xam ne dafay mel ni sax aw lépp waaye fekk na ab takk la boo xam ne ëpp ko indi ndax boroom kër ngi nii boo xam ne ñàkk na boppam ñàkk soxnaam ñàkk ay doomam te ëppal te ko ko yóbbe nim ko ko yóbbee mooy moom dafa ëppal ëppal tax na koo takk ku ëppal waaye bi mu amee doom it doom ja daa ëppal mu mel ni kon kër ga tas na ci famille boobu li ko def mooy euh, dafa ñëw am ko ko romb ca tool ya moom góor gi ne ko salaamaaleykum mu di ko xool ba kooko de mu gàddu goppam ñëw ci kër gi di ko fekk jabar ji fi muy mooñee ne ko man kat dafa am ku ma romb ca tool ya ne ma sama baay daa wàcc liggéey jabar ji ne bëri tàcc ko ne ko wax ji day dakk mënuma waxtu wu ma toggee nga naan ma sunguf si danga nga koy mëq ba reer bi du doy man mosoo maa gis su mëqi sunguf di xuloog moom ca loola ba jóge fa dem fekk doom ju góor ji fa mu jaaxaan ca basang ba mu dikk di ko wax dikk ne ko sa baay laa bëgg nga wax ak moom ndax waxtu wu ne may nemmee ko naa ma damay wal di mëq te man cere ji soo manqué manqué wul ci man moo joxewul lu mat doom ju góor ji ne xam nga nu ñuy def nañ tàggoob dëkk man dëgg la may samay jur waaye man mënuma li ngeen bëgg mënuma ko di sàmm di taxan mënuma koo boole dangeen ngeen ma mën a sàmmloo ma nekk càmm gi wala ngeen mën ma taxan loo ma nekk taxan bi waaye mënu may boole sàmm ak taxan ñu ne kon léegi dañu seet dëkk ba doom ju góor ji dem na ndax nee na liñ ko teg mënu ko du boole sàmm ak taxan kee itam di jabar ji dem na ndax nee na dañ ko ne dangay wal di mëq ba sooy siim doo siim dara lu ñu gis góor gi itam dem na ndax nee na baayam daa faatu te ma war a wuutu baayam dëkk ba tas borom bataaxal bi ne lii lépp nag ëppal a ko indi mu ne nag kon noonu ëppal amee ci noonu ni la amee itam ci léeg-léeg da nga gis. nit wax wax joo xam ne fa mu jëlee ja wax ja du noona moo xam na nga dib journaliste sa ëppalte ndax ëppal nag tëndul ci kenn yow journaliste bi mën nga bind loo xam ne sa ëppalte la ko yóbbee waaye information bi la joxoon du lii nanga ko déggee ak ni nga ko bindee bokkul nga ëppal ba xëy na lor nga nit ndax waxal nga ko loo xam ne fa yow a àgg du man àggu fa te sax ëppaltee la ko yóbbee bu ñu ko bañ ko toppee ba ca ba ca cosaan la gis nañu ne li nga bind ak li am ëppal tax na nga yokk ci loo xam ne du noona wala nga waxee ko noo xam ne du noona mooy yow mii nga xam ne yaay boroom kër bi yor say soxna ak say doom nekk ci biir kër gi yow itam am na lu ñu la nettali woon ci kër gi nga taaj waa kër gi di ko wax ak ñoom sa ëppal tax na nañ la ko waxee woon ak ni nga ko waxee bokkiwul aw ay sosoo kon daal euh, sëñ borom bataaxel bi daal nee na nanu waxtaan ci ëppal ndax doomu aadama ak nu mën a mel ak lu mën a am ak lu mën a xam suñu xaseen dafa ëppal daraam wératul du xam-xamam du diineem du ngoram du lennam ëppal te daal baaxul ci doomu aadama. jërëjëf sëñ Ibrahima ah, kon ginnaaw jot nañ bataaxel bi ni ñuy jëkk rek mooy ah, siyaaranteeg ñi nga xam ne ñoom lañ jàkkaarlool ci site bi ñu di ñu seetaan mu di site bi ñuy wax. alazhar touba point com kon ñu ngi leen di siyaare yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm di sàkku ci yéen ngeen di ñu ñaanal jàmm mucc ak mos yàlla am na ko yàlla nañu ko yàlla boole ci darajey nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam barke si Ahmadul Xadim xanaa sëriñ Ibrahima ma bëggoon cee dolli tuuti rek siyaare Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ginnaaw bu ma siyaaree kilifa gu mag gi nga xam ne siyaare nga ko noppi siyaare Seex Mamadu Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal fan bu gudd ba ànd ku ndax sëriñ Ibrahima kat Seex Muntaxa boo koy seet daa mel ni dafa am diw guy jëm si ci ñun mu doon lantinoor bi koy jàllale si ñun muy ndigal li nga xam ne mooy bàyyi ko ci xalifa bu tëdd bi fi nekk euh, ndigal loolu moom mooy diw gi ñu di ko sell defar ko ci anam yi sell ba noppi joxe ko waaye diw googu toujours seex mun Mbacké mooy buntu ndigal bi nga xam ne fi lay jaar jëm si ci te du ci dagg dara te dañoo ko joxo ni ñu ko war a jote tey dañu ci dañu jiitu dañu ci soññ kon seex Mountakha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te may ko ak wér ak ku wérle ak waa kër Cheikh Mouhamadul Bassir gépp ak waa kër Sëñ Tuubaa gépp ginnaaw loolu li ñuy def sëriñ Ibrahima la daldi daal tàbbi ci bataaxel bi nga xam ne mooy moo di bataaxelu mag ñu ne ma nga koy jàng wala ndaw lu mag yar kon ñu sañcee jàngate euh, bataaxel bi jëm ci ni ngay ko waxee ëppal moom it muy lu yaatu lu ëmb lu bëri euh, loo xam ne boo ko dee seet ba ci fii ñu toog di fi waxee ku ëppal sax bu jàkkaarloo micro bi lee mu wax fi lu noonu ndax Ibrahima bari na musiba mu xew te kàddu ku ëppal képp koy waral boo ko defee ñun ci buñ daan buñ ñu a nekk ay ndaw li ñuy wax ay tuut tànk euh, nekkoon ci daara ja daan nañ dégg ñu di ko faral di waxante daa nga dégg ñaa diw yow del mujj wax tey jëkk noppi ku ëpp la koy def xam nga ko ëpp waxtu wu waxee waxu toj penc waxtu bu waxee waa waxu toj penc moo ne ku ëpp waxtu bu defaree yàq waxtu ne damay defar yàq ndax lu muy def lu ne daf koy songeeg doole bu dee loo xam ne danga faa war a demee ak poids bi liibar buy agsi ci loolu dafay agsi ak poids juróomi kilo loolu du ko attan du xam lenn loo xam ne ma ngi koy def xam pam ko war a yemale day tëm nañax nañax rek koppal moom la ñuy wax bu déggee tëll daal ne damm na dégg tëll ne damm na buñ koy wax jubluwuñ ci bant bu damm tëll jëmay def loolu jubluwuñ ko ci dégg mbir xamoo mbir ma nu mu demee nga tëb daw yokk ko comme ni nga ko waxee léegi ci ab journaliste dina wax boo wax euh, xibaar boo xam ne information ba dama ko jotee ak na mu koy waxee du doon benn mooy am tëll ma rajax moom daal di waxi tëll tëll ma rajax dégg tëll ne damm na la mu dégg ak yàkkamteem ak ku ëppalam mooy tax du ko mën a jotee na mu ko war a jote waaye ilaa bu ko nu jotee bu demee bay wax dootu mën a contrôler boppam fokk mu dolli ci loo xam ne bokkut bu ko defee nag bu boobaa tooñ ne kam ko waxal tooñ na boppam. ndax nam tooñe kam ko waxal mooy kam ko waxal te loolu amut ku ne xam ne tooñ nga kooko ndax kooku mën na caa doxe am ca jal jafe-jafe yu méttee mett te fekk moo ko yóbbi waaye moo ne moom mi ko defit moom mi ko ko waxal te wax ja teguwul fenn ëllëg bu ñu ko seggee ba gis ne wax ja nam ko waxee ak na mu demee woon du benn bu keroogee moom itam tooñ yàqal na boppam kon nit ki dafa war a teey ci lu mu mën a doon ci ay wax ci ay jëf ci ab dox dox sax sëriñ Ibrahima da ngay gis koo xam ne dangay ngay ànd ak moom fii dox ni ma la ko mën waxee àpp kilomètre ci biir kilomètre bi mën na cee joggi bant mu damm ci tànk bi mën na fee fakka salu daanu mën na fee teqtaloo luy law ci àll ba te yow mi nga àndal yow mi mu yow yooyu yëpp mën na laa ñàkk dal kon moom mi muy dal ak ëppale moom ko teg ak ëppal rek ci la ko ci la ko ci la ko dale waaye bu teeyoon ni nga teeyee loola du ko ci du ko ci fekk kon sëriñ Ibrahima ni nga ko waxee léegi ne. ëppal boo ko dee seet te ëppal boo ko dee seet ci defin dafa mel ni ndox mu teeyul comme ni nga waxee ne ndox euh, teey ci ndox lañ ko xamee waaye ci nit la ci nit la gëne teey nit ko ëppal du ko def nit ko ëppal nit ko ëppal mënu ko nit ko ëppal mooy ku teeye di ñàkk a moo di ëppal nit ki bu yamee lenn lu muy def lu ne mu contrôler boppam seet nam ko war a defee seet fam sa war a yem seet fam ko war a jaare seet la ko sabar ak la ko ca warul loolu mooy ak tey waaye lu dikk lu ne nga tëb na ca sarax boo déggee nit ñuy wax nga tëb dëgg ca nu noonu loo dégg ñuy wax bu ñu la ca boolee bu ñu la ca boolewul nga ne dinaa dinaa ko xam dinaa ca dugg loolu yëpp mbiri ëppal la ku koy def ku ne nag da ngay dëkk ci gàcceel nit waaye da dëkk it ci gàcceel sa bopp ndax ku koy def ku ne kat ëppal ku ko dëkk ku ne da des na da yàgg jànni sa te buñ seetee njànni tale buñ ko toppee kala jànni gàcce du ko ci fekk yow yaa am gàcce ndax dañ ñëpp dañuy xam ne li mu la wax mooy mooy waxi li nga jëf waaw mu ngoog mu ngoog kon ëppal baaxul yal nañu yàlla musal ci ëppal ëppal daal sëñ ibraahima lu baree ngi yàqu ëppale ko yàq lu bari lu yàqu ëppal moo ko yàq su tey amoon rek loolu lépp mën naa defaru waaw lépp lees di defar te ñu tey képp daje fa loolu mën naa jeg waaye lépp lu ñuy defar te ku ku ko ëppal nekk fa loola loo loo loola yàqu waaw kon Serigne Ibrahima ñu jëm laa delloo micro ba ci kanam. jërëjëf euh, Serigne Bassirou Seck ndongal Daaru Minam ci kàddu yu rafet yooyu nga xam ne yaa ngi ko doore ci sang bu tedd sëñ Mountakha Mbacké mu mel ni islaaha saatal bayni googu nga xam ne moom lañ doon wax ca way juróom wa day moom itam mi ngi ci ndax la sëriñ Touba waxoon ka ko doon interprète ne ko lantinoor warta fot dëwlin loola kon mooy mbiri sëñ montaxa ñu di ko doolee ñaanal fan nu gudd lool waxand ak wér ak mu doon jëbal sëñ Basiru bataaxel bi it ni nga ko jàngate te moo di bataaxel bi nga xam dañu ko yónnee di waxtaan ci jenn jikko ju ñuy wax ëppal mu mel ni ni nga ko waxee itam noonu la nit bu ëppalee soo àndeek moom ci kaw yoon di dox sax dangay xam ne ko ëppal la su fekkee laawar war na féete gannaaw daanaka léeg-léeg mu ñëwee ndeyjoor léeg mu ñëwee càmmoñ léeg mu jiit la ba day taxaw ba nga romb ko ëppal te gaa yi tax du mën a régler tànk yi mu normal nga gis ne kon foofu rek ëppal te wàññinam daal na fay am ndax dem ba mënoo ànd ak nit dox topp ci ginnaawam ndànk mënoo ko. lu dul léeg-léeg nga dem ba fakkastal ko nga xam ne da ngay jël sa baaraam day bii loolu ko ci sii sa tànkam gii ngir sa ëppalte soog ne ko abaal ah, ma de loolu ëppal la noonu nga mel ci doxin wi ni ngay mel ci wax waxtu woo xamee ne wax am na ni nga ko waxe aw toj penc ci am fa ku ko wax soo seetee ka koy wax ku ëppal ko lay doon nañ lam fa wax ña ko xam bari na fa waaye dafa téyut bu dee baat la boo xam ne dañ koy yun yunnee di ko xam te waxaguñu ko waaye ku ëppal ko bu bokkee toog ca jataay ba moo jékk na daal létt na nàngam ji ma dégg nag su ko defee ñu teeñe ne ko ah loolu foo ko déggee mu nakk nakal waaye ña fa toogoon ñépp donte xamoon nañ ko it seen teey lañ ca àndaloon waaye moom ëppal teem tax na mu wax ko ba bu ëllëg yi ak si la ko cay dal moom la cay dal ndax moo ëppal nga gis ne ëppal ni ko waxee lépp lu mën a doon soo ci ëppalee gis wàññen wa moo xam ngay lekk suur war a bàyyi bàyyiwoo ëppal ca lekk ga moo xam ngay naan war a màndi bàyyi nga ëppal ca naan ga moo xam nit koo xam ne dafay faj ay aajo di dimbalee lu mel ni euh, koor gee nu génn nga xam ne ñu bari ñu ngi bàyyi xel ci di dimbalee yokk seen jaamu yàlla ci weeru koor wi di joxe ay suukar di joxe ay ndogu di dimbalee doomu aadama yi nga xam ne baax na ci wépp weer waaye dañ koy gën a séentoo ci seen ramadaan mooy weeru koor ndax lu ful lu baax liñ ciy ful mooy tax ñu ciy gaawantu te lu baax loolu boo ko bëggee xool mooy xoolal lii ñuy wax gowaana ñaare bis bu ñu ne dañuy maye tey da ngay séen ñu ne 10 pour cent wala 100 pour cent wala 200 pour cent ngay gis ñu bari gaawantu jënd noonu itam la weeru koor mel ci biir weer yi xéewal yi nga xam ne dañ ko ci diggee di ko ci yokk te ki koy diggee lu masaa diggee def na ko te moo di borom bi tabaraka wa taala loolu moo waral ñu cey gaawant waaye gis nga gaawantu boobu yëppit nag bëgguñu nga ëppal ci. ba defe ko nu warut bëgguñu itam nga ëppal ci ba eh, dem déglu waaraate ñëw di waar sa waa kër nu na bokkut ak noonu nga xam sa ëppaltee la yóbbee waaye li nga xam déggoo ko ca eh, ca waaraate ba nga xam ne ëppalte nga yor xutba yi nga xam ne itam ñi ko war a def ñi ngi ko jàkk yi ak jumaa yi duñ ci bëgg imaam bu ëppal ndax bu ëppalee dana wax ba wax loo xam ne ca mbooloo ma dana ca am ku mu lor te imaam kenn wërtu lor kenn waaye imaam a ci raw ndax dañ ko yaakaar yërmaande kon ëppal ndekete dem na ba ci jullikat bi ëppal dem na ba ci màjjaalkat bi dem na ba ci kii sàkku ndimbal dikk nga dimbale ko tey suba mu dikkaat gannaaw suba mu dikkaat daal di bëgg ëppal fa muy mujj ji mooy ci njànnite mbaa nee leen ko nekkuma fi lu tax moo la wàll jikko jooju ndax dafa ëppal mu mel ni kon ëppal sëñ Basiiru daal nekk na loo xam ne lu mata mata mata mata mata teet la ci doomu aadama gënu ci doomu aadama yàlla ku tey ku bëgg ku tey la kon defe naa ne maam Thierno ni ñu def mooy euh, dañuy dem reçu ànd ak sunu sponsor officiel yi dellu si biir waxtaan bi. allo. Souleymane. papa. waaw. sa soxna si maam Diarra. maam Diarra dafa am doom. allo. kër ba jeex na. Mouhamadou Lamine. sama papa dafa ma woo léegi crédit dem dagg. des desuloo foofu carte. waaw Souleymane. xanaa xamoo Kool Touba. Kool Touba. toogal ma la. Kool Touba. site internet la boo xam ne nii foo mën a nekk ci àdduna bi mën nga jëndal crédit ku la neex. sa baay boobu la doon woo léegi mu dagg mën nga koo jëndal crédit léegi mu jot ko ci portable ah bon bien sûr maam jaara moom mën nga ko jëndal mën nga jëndal crédit say am di jàmm say xarit ak ku la neex te rax ci dolli boo nekkee fii ci États-Unis wala nga nekk Canada non seulement da mën a jëndal keneen mais di nga mën a jëndal sa bopp et en toute sécurité damaa wax rek uh-huh. ne ko euh, maam jaara am na am na gone kër di ko am naa doom rek yàlla baax na wax naa ko ko ah. waaw waaye kër di baa jeex mu dagg waaye jot naa ko wax moom ne ko am nga doom ah man de jot naa crédit. am nga crédit. crédit bu bari sax. jógee ci service bu ñuy wax Pôle Touba. woo woo ko yeggale ko wax ko doom ji na ko ah, naa xoolal ma sama portable gan daa sonné. ah ma message la ma. xaw ma message lu doon. ah yow it demee message bi lañ la envoyé. service bu ñuy wax Pôle Touba rek am nga crédit. kon dañoo ah, ah, euh, nga gis ne sëñ basiru nit bu ëppalee lum la wax bum la doy ëppal te gaa tax yokk na ca walla mu wàññi ca nit bu ëppalee lum lay ñaanal bum la doy. ndax amaana la muy tari yokk na ca wala mu wàññi ca nit bu ëppalee bul ko yónni te bul ànd ak moom ndax foo ko yónni bu dikkee lam lay wax mën naa nekk noona mën naa nekk bañ a nekk noona ndax ëppalte gaa yi tax lam fa jëlee xamu ko boo àndeek moom it ëppalte gaa yi tax fu ñu la àtte àtte ko fa te fañ koy àttee mooy ku ëppal nga gis na daal kon ëppal euh, sëñ Basiru bokk na jikko yi nga xam ne doomu war na ko war na koo war na koo teet mm-hmm. gënul luñ tagg-tagg nit waaye waaye dafa ëppal mm-hmm. moom doy na waar daraam wératul waaw jërëjëf sëriñ Ibrahima ni nga ko waxee noonu rek la ëppal lu baree baree bare rek ëppal moom nit ko ëppal daanaka dara mënatoo sotti rek ah, xam nga sëriñ Ibrahima tiim ndab sax di ca lekk di ca jëfandiku maanaam mu mel ni li ñuy wax yaram jàmbur na ca ndawal nga dem ba sax ca dog woo xam ne dangay dem ba def ca li ñuy wax pot ñu loolu la mu ngànt mu war di dog bu rëy woo xam ne na muy toll dafa lay lenn ëppal moo ko teg boroom benn yàkkamti naa lekk li ci ndab li ba jóg wa ilaa ma ngay sàq bi mokk mu yàkkamti bu bàyyi ko mu jàll te ndawal gu guñ yooyu moom pour yu pour yu néew ko mën a jàllale bari na yax façon yax boo xam ne ñaari mu gala nit ci ñam ba jàll ba sori ci moom sonal ko loolu ñu topp ko ba mu génn nga gis yàq yi xam ne borom teewoon te ba muy lekk booba yax moom ba laa jàll mu yëpp ko ci gémmiñam jëm jaare pexe waaye ëppal ko koy teg Ibrahima dem na ba ci ëppal barab bii ñu nekk bokk toog tey di fi waxtaan waxtaan wi ñu waxtaan maam Thierno mi su doonee ko ëppal dara du sotti dara du sotti gisoo ni muy doxee ak tey téye réglé mel ni lu ko ñemee wutalaal di ko toppatoo noo xam ne di ko def nan lépp xam ne boo pëlee dara du réglé boo pëlee ko fa mu bëgg mu jublu fa màkk sax du fa jublu bokk mu tey ba réglé ko ba mu jublu fa sëriñ Ibrahima ëppal ni nga ko waxee léegi mu dem ba ci weeru koor bi di woor bañ nodd nga ne man di damay nag ba ci kanam teel na te yii na dañoo nodd waaye jotagul teel na jant bi sono nit ñu nodd noonu sëkk ëppal te xamoo ni ngay def tax nga continuer léegi amatoo ti tiyaabu bàkkaar ngay am ndax dañ koo bañ ba borom xam-xam yi dañoo wax ne nañuy teel a dog te yeex a xëdd ëppal li na tax xëdd jot nga bëgg yow koor gu gën a defe ne defe ne luy gën a baaxal sa koor la tax nga damay yu man ci ma si boole xëdd waaye laa nga jóg waxtu woo xam ne xëdd weesagul nga ne xëdd wees na bàyyi ko fa te xëdd boobu doon loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne ci moom la ñu roy moo ko digle ne nañ ko fonk te di ko def nga ëppal ba bàyyi fa xëdd loraange dikk na nekkatul njariñ loraange lay doon kon daal ëppal doon na loo xam ne bari na lu yàqu te ëppal moo ko yàq lu baree baree bare bari mu ngi yàqu ëppal moo ko yàq lu mu dugg lu ne nag moom loolu du jàkk lu mu lu mu xas dugg moom lu mu xas dugg lu ne moom loolu moom day yàqu rek loolu moom day yàqu lu ëppal dugg loolu yàqu. waaw euh, kon ni ñuy def mooy yaakaar naa ne waxtu bi ci des amatul solo. ni mm-hmm. ñuy def mooy jéem a tàggatoo rek ak suñu bokk yu tedd yi nga xam ne ñoom la ñu jàkkaarlool. di ko defee noonu rek di leen ñaanal jàmm fu ñu toll rek di sàkku ci yéen ngeen di ñu ñaanal jàmm yéen euh, mucc ak mos yàlla am na ko yàlla nañu ko yàlla boole ci daraje yi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam barke si Ahmadul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Euh, jërëjëfiti sëriñ Bassirou Seck ndongol Daaru Minam ci faram-fàcce gi nga faram-fàcce bataaxelu tay bi te moo di ki nu yónnee woon na nañ waxtaan ci ëppal yaakaar naa ne ni nga ko waxe leer na naññ ci ne gannaaw nee nga nit bu ëppalee daraam wóorul xam nga ni nga ko waxee noonu la caméraman bi nu jàkkaar lool muy réglé caméraam di xool ba xam ndax baax na son bi normal na ndax cadré na ndax sumé na lépp loolu yëpp teey lañ ca soxla waaye su ëppaloon ba nëgë ni bi taxaw na loolu nag dem na ba ci chauffeur bi nekk ci tali bi dawal wala mu nekk ci xàll bi dawal moom itam bu ëppalee li ëpp ci jëye yi nga xam ne yaa ngi koy dégg mu di ay accident chauffeur bu ëppale ko indi mm-hmm. ndax double du dara lu ma yàkkamti te ëppal goo gis yàkkamtee ko laltaay gis nga nit bu ëppalee dëgg-dëgg sax ay waxam du diib day bar ndax kàddu gu wax bëgg naa ko gene balaa daanu su ko defee nit bu ñu ëppal na rek jàppal ne ko bar la waaye ku teey ay waxam day teey ay jëfam day teey képp koo xam ne wax nañ leen daal diw ëppal na jërut ngay laaj kon nu muy waxee xamal ne ku bar la fukki baat yu mu wax ñaar yee képp lañ ci mën a xam te na ko baamtu lu mat ñeenti yoon maanaam lépp lu ñuy taamoo nit ku teey nit ku ëppal du ko mën buñ doon tànn tey imaam danañ ci war a mën a boole bu mu ëppal maanaam caractère yi nga xam ne jikko yi nga xam ne war nañ koo tànnee ilimaan war koo fal ilimaan mu war di wax ak doomu aadama yi di joxe ay ay message kooka warta nekk ko bar war na lu muy wax mu benn benn ko ndax am nañu seen ak dégg gaawul te ñooñu kenn du leen àtte ci déggoo gu gaaw kon ndekete ëppal yàq na lu ne jàngalekat bi jàngale ca école ba warta ëppal ndax su ëppalee ay waxam day bar te kon ñi muy jàngal njàng ma du gaaw a dugg mu mel ni kon waaraatekat ba noonu la ostaas bi noonu la sëriñ bi ñuy taxaw di ñaanal nit ñi sax noona la na teeylu ak ñaanam ndax léeg nga gis nit ko bar ba noppi génn ñam doon ñaanal kenn ki na morom wàll suñ bi wax dégg ko mu ne ko ah man wax dëgg dama ko sulaaj waaye dégg dégguma ko ah xam nga loolu itam lu mat a bàyyi xel la ba tax na borom bataaxel bi daal ñu ngi lay xamal ne euh, Cheikh Basirou def na kémtalaay kattanam waaye nag bataaxel bi waxtaanam mënut a yem ci benn émission xam naa jëmbat nañ ci ñëwaat ci ay jamono kon ñu xamal leen rek na leen Euh, ñu ngi leen di tàggu fii di xamal ne ki ma doon ci waxtaan bi mooy sëñ Bassirou Seck ndongal Daaru Minam ci njàngatu bataaxel bi euh, caméra ñooy ànd ci ak sunu caméraman bi ñu baaxoo àndal muy sëriñ euh, Maam Thierno Faye waaye nag réalisateur ñooy ànd ak sëñ Soy bu Mbacke Mar monteur itam sëñ Soy bu Mbacke Mar la waaye ñu ngi ànd ak reçu sëriñ Lamine Touré ki ñu doon présenté émission bi seen mbokkum taalibe seen xarit Ibrahima Ndiaye di leen jox beneen yoon incha allah dig daje incha allahu asalaamaaleykum wa rahmatulah rahmatullahi taala wa barakaatu